àndal bokk na ca la ñuy fas yéene waxtaanee eh, ni ñu ko waxee rek muy duel Barthélémy Dias Soham Wardini ak liste parallèle yi nekk ci Benno local yi ak eh, coow li waaw moo tax ñu bëgg ci am analyse wu Aïssatou Diop Fall ginnaaw bi ñu ko nuyoo àllarba bu nekk mu fi teew ci émission bi Infos Matin soxna si ginnaaw bi ñu nuyoo baat bi dee na wante nag na nga góorgóorlu wax ba ñu dégg la mm-hmm. ci bataille bi nga xamante ne ñu ko tuddee kon bataayu Dakar mais gis nañ ci bu ci gënoon a fees muy diggante Soham Wardini ak Barthélémy Dias finalement Yewwi Askan Wi Barthélémy leen tànn ngir mu nekk seen candidat est-ce que am nga ci mbetteel. non am ci mbetteel euh, ginnaaw ba ma nuyu nuyu waatee Sénégalais yi. Mhm. Euh, di jégaluwaat nag ci euh, baat bi. Mhm. ñu tooy rek ak sonn. <laughs> moo ko waral waaw. donc et puis mhm. vraiment pour. euh, cette euh, nouvelle euh, formule. Mm-hmm. Euh, vraiment pleine d'enseignement. Mm-hmm. on va à la main des journalistes derrière. Mm-hmm. bien que nag bëgg naa ngeen yokk tuuti cas-cas nag. <laughs> waaw bu mu bu mu bu mu laaj trop na na xaw a tàng tuuti. <laughs> wóolu nañ ci ay surtout jox nañ jox nañ la yëngatu. waaw na tàng tuuti donc ma ma ma boobu loolu bu loolu weesoo. vraiment bëggoon naa wu bu baax a baax waa PASTEF. ndaxte Sénégal benn bopp la. jàmm la ñëpp di wootee mhm. te yàgg nañ toog fii fàtte di ñaawlu mhm. liy xeeñ ci réew mi mhm. muy violence ak li am ba pare ak li am ba pare c'est dommage euh, wax naa fii ne euh, wax naa mos naa ko fi wax euh, jigéen bu ne moo xam ngay yaay ngay mag ngay rakk walla ngay jabar woowal sa njaboot am noo leen dàmpee pour ñu am nu ñu doxale ci élection yi ndonte ne ndogal yàlla am na ndax ku ne ku matal da dem waaye euh, lii bi xew dem dafa ma metti bu baax ndaxte ay xale lañu sama mbokku faaleen bi maa ngi mm. liir Ibrahima Fall yàlla na ko yàlla yërëm te teeru ko Firdaws maa ngi liir ñu ni euh, mi ngi doog a euh, jël soxna ndeysaan du di lu metti wax dëgg yàlla te dégg naa mm. tamit waajoom bu jigéen dafa wàññeeku mm-hmm. ñu koy masaw bu baax a baax ak Ama mm-hmm. am na tamit Ama Ibrahima mm-hmm. ak waaw am na nit lañu daan ils sont trois. ils sont trois waaw ñaar ñi Rufisque lañ dëkk. voilà te tamit dégg naa ne am na kenn ku nekk ci coma ñu ñaan yàlla. yàlla yàlla na ko yàlla yëkkati. accident dafa mën tas yaakaar vraiment lu la ndaxte. ñoom ñiy dem bu ñu xamoon ne bu ñu demee. lii moo leen fekk bi ñu def. dëgg la Ousmane mi leen woo tamit ay la yëwan bu xalaatoon ne lii ngeen dina ko daal. du leen yóbbu yóbbu ay doomu jàmbur mm-hmm. kon lii la ma naqar la boo xam ne mm-hmm. tegu na ci ko Sénégalais yëpp ñu ñu ànd ak ñoom nag di leen massawu mm-hmm. euh, rafetlu naa tamit bu baax euh, euh, président Macky Sall jaale gi mu jaale rafetlu naa ko ba nag te loolu mooy taxawaayam ndax ñu Sénégal loolu ñu xam boo am boo nekk ci bànneex ñëpp àndandoo yéena la ko nga nekk ci naq ñëpp àndandoo ngi jooyal la ko pour wàññil la au moins jëf yi kon loolu mu def nag mooy taxawaayam lu rafet la waaye y a un bémol ndaxte le bémol mooy. dama jàpp ne première attaque bi mooy ba kii Doudou Kami yi nga xam ne euh, je pensais qu'il avait compris mais il n'a rien compris parce que dafa amul ku ko woo. xëcc noppi na ko arrêté bu fekkonte ne Doudou Ka ba mu keroog ut buzz ba mu demee euh, euh, def loolu mu def Macky Sall woon na ko parce avant. accident bi lii accident la. mais jotewul avant accident bi amul lien attends avant accident bi y a eu des échauffourées entre euh, les deux militants euh, yooyu dafa gënul xam euh, loo gis dafa am benn système de vase communicant parce que fitna boo ko sookee rek xamul fi bu ñëpp lu ñu naan lu waaye ren sa loxo lay nàcc. te ay du yem ci bopp borom te si bopp borom. xam nga euh, tooñ baaxul te réew mii damay wax tout le temps ne politique affaire gentleman la euh, adversité la du animosité kon Doudou Ka ba mu jógee dem di Rita Mbale fee ñu euh, tudd Ziguinchor ba la fa xew xew fa Macky Sall mi nga xam ne mooy président de tous les Sénégalais mu neex Sonko mu naqari Sonko c'est le président de Ousmane Sonko mais c'est aussi le président et surtout le leader de Doudou kon bu doon bu woon Doudou teg ko ci àndam teg ko ci àndam yemale ko na ko xëy réglé ndax y a pas de fumée kon mun nañu espere ne mattante du fa am ba leen xew fa waaye defu ko woo na Doudou Ka ba muy woo ñoom Benoît Sambou yooyu ba mu woy Doudou ne ko faluma la investir ma nang bu fekkonte ne boole na ci ne ko régleel mu réglé Doudou Ka yow demoom bii lan la fi def mm-hmm. yow xaaral may ma Chérif mm-hmm. faluñu la falaanew la investir ñu la kii dem na fa yow nga bëgg jàmm waroo fa waru fa woon euh, dem ba leen di xew parce que Chérif dama wax tout dafa fa laa jeexale ci loolu hmm. mooy Sénégal dafa changé léegi violence ku ko fi woote ak ku ko soqi hmm. benn Sénégal du la fal kenn du la naw kon président Macky Sall euh, mi ngi mi ngi mi ngi yónnee ay galgal euh, Benoît Sambou ak kii Sané parce que Doudou Ka lii mu def démb mel na dafa jël maire Ziguinchor ubbi gémmiñu Sonko sex ko ko. mais je veux dire parce que tout non, simplement tu sais pourquoi. laaj mooy lien bon. non le a pas de lien entre si Chérif xam nga Chérif le lien xam nga lan lien bi mooy ba bu at ba mu amee ñëpp dañoo taxaw ñaawlu la xewoon terewul Doudou Ka ay retourné sur les lieux du crime loolu laa njëkk a ñaawlu parce que ba noor moom investir ñu ko faluñu ko Macky Sall bu ko Doudou Ka doyoon. Mhm. bu xamoon Doudou Ka toj na fenn mu falu ko. falu ko mhm, kon Chérif xaaral. Euh, gaawal nag gaawal nag dama lay kii dama lay <laughs> damay wax ba may ma. Euh, euh, Aïssatou Chérif li muy wax aussi <laughs> accident ndogalu yàlla. mais mais mais yi ma fitna ji am. loolu moom je pense que. wala parce que fa muy mujj. neex du neex gis nga Malick dama xam nga leen mënu mënul ñàkk parce que xamatu c'est pourquoi. Mhm. parce que il faut que je la. il faut mu am arbitre. Mm-hmm. arbitre bi euh, xaw ma ci football nag mais arbitre defe naa moo am principe de neutralité mooy siffler la fin de la récréation. de la récréation loolu foog mu am. très bien kon euh, Macky Sall qui ne soit pas étonné suba bu dee Benoît Sambou ak lajj nañu. Mm-hmm. mu xam ne Doudou Ka mi la ñëpp jéppi moo tax fàttali ñu ne. très bien léegi nga ñëw ci ma ñëw si. waaw ñu ñëw ci Dakar ñu ngi si oui. Mm-hmm. je ne suis pas surprise je suis déçue nag en tant que femme. parce que. en tant que femme Fatick. journaliste bee fi nekk mooy man il faut me prendre dans mon entièreté. ko yëgee jigéen laa d'abord moo jiitu lépp. dëgg la kon en tant que femme Fatou yi regarde bien toutes ces listes position yu baax yi yëpp. góor ñi lañ ko jox góor ñi lañ ko jox. waaw ana parité. mais mais parité xoolal c'est c'est mort ça belle mort. tu sais pourquoi parce que malheureusement. il y va aussi ñun ñun tam suñu faute mi ngi ci en tant que femme. parce que ñu ñoo nangu quelque part. nekk ay nooy neex nekk di nekk fi di chauffer ay. place et pourtant on mobilise. ay on malheureusement. on est compétent on nous a tu a malheureusement euh, euh, mis dans un terroir euh, bi def ci étiquette mobilisation folklore animation des partis. te loolu suñu yaay yi noonu la fi nekkee woon mais ñun ñuy fàtte romb nañu loolu. compétence. parce que mhm. ñun ñoo am compétence. te malheureusement non seulement ñu ñoo am compétence mais tey bu ñu dajaloo woon. en mhm. ah nombre ñoo leen ëpp mais malheureusement chaque fois góor ñun dañuy dox suñu maayin parce que parmi nous aussi. Mhm. y en a qui se laissent et c'est dommage parce que euh, tey li xew lu ma ne je suis déçue en tant que femme mais je suis pas surprise parce que sa santé c'était clair. et parce que aussi soo am wax naa ko fii invité naa ko sama yaay jooju nee naa ko euh, politique du affaire de bisounours c'est pas un truc de c'est pas voilà on joue pas à la poupée quoi c'est pas kii non non non c'est un truc de de sérieux de de de xel un truc de bandit yooyu la bu fekkente ne yow amoo tu tuuti caay-caay mais jaru nga ci dugg te maire bi amul benn caay-caay ñee ja euh, dëpp ko liñ jaan wëndeel ko sànni ko fële ba dem. donc c'est ça moo tax ne woon naa euh, mhm. euh, sóoraale sa plan B plan B bi mooy lan mooy mën a jënd jëfu boppam mais gis nga su ma ñëwee ci lii xam nga lenn bokk ci coalition waaw wala investir comme ko gisee ci histoire yëpp maanaam parti ñoom xalaat nga tey mu indi liste parallèle mais elle est obligée maire bi parce que elle c'est la maire sortante benn c'est ça il faut qu'elle défende son bilan c'est ça ce qui est en train une forfaiture. mais mais du maire bu nga xam ne aussi dañ koo fal. non non xam nga. Ah, parce que aussi c'est pas c'est pas par les urnes. c'est pas par les urnes qu'elle est qu'elle est arrivée. mais jour ba mu demee dafa gagné largement. regarde xam dafay jouer dafay jouer ci ci ci ci. xoolal euh, euh, euh, regarde regarde Malick. Mhm. c'est vrai euh, elle n'a pas eu le mandat comme elle devait l'avoir c'est pas de sa faute. elle a elle a eu le mérite. de terminer un mandat mais d' abord dañ ko voté. dañ ko voté mu gagné largement. conseil waaw conseil waaw c' est pas que askan bi ñoom ñoo la tànn. non attendez attendez attendez. conseil yi ñoom ñoo ko tànn. attendez attendez. c' est attendez c' est d' plus méritant pour elle parce que dans le conseil municipal de Dakar y' tous les partis si tous les partis tous les conseillers municipaux se réunissent pour ne ça mooy dem. kon elle a du mérite parce que saxuloo kenn tàngal ma. c'est une dame de consensus voilà aussi bëri na ay candidats. Mhm. Mbanda Diop pourquoi il est parti et bëggoon nañu pourquoi ñu jox ko moom parce que comme tu viens de le dire c'est une candidate de consensus mais xam nga benn kii laa gën a am ci li mhm. bu weesoo cette affaire de femme mooy euh, Barthélémy na def très attention relation entre Barthélémy et Khalifa Sall. euh, c'est sujet en tout cas à interprétation parce que lu leer ba leer mooy Soham Wardini mi moo nekk ci xolu Khalifa Sall. non mais Khalifa ma may ma Chérif mu tànn Barthélemy. ma waaw loolu laay waa léegi mais kii da nga may may ma wax. may ma wax Chérif yaram a nag sama baat bi baaxul. Mm-hmm. Mm-hmm. may ma tuuti mënumaa yuuxu defal nànk ah, c'est parce que tout simplement. Khalifa li ma ko yàgg wax Khalifa malheureusement est un leader comme je ne les aime pas il est faible li li jën taf yëngal amul am amul ku mën a calculer nag nee naa lem-lemalam bii ndaxu fi kenn mhm. parce que cerveau bi grand la yor a traversé toutes les générations mhm. ba ba ñuy peinture mi ngi toog ña koy peinture nañu composé peinture ba peinture ko ma nga toog kon kii a lijjanti la waaye nag malheureusement l'homme nit ki ci boppam mhm. moo amee ay faiblesse yoo xam ne leader bu ko am un Barthélemy Dias gën la nekk naan te ëpp la fit ëpp la fulla ëpp la fayda jaar sa kaw Barthélemy bu jàkkaar bu jàkkaaroon ak keneen ku lu soxla war de du jàll. mais non du du parce que <coughs> ñoo yem doole. léegi li mais li neex bi mooy. Mhm. Khalifa Sall ci boppam soxla war di moo ko gënoon. may ma may ma Chérif xam nga may ma lu tax jëfewu. lu <coughs> tax jëfee ko yaa mel ni sa yàllaa ko fi sa ba wàll loxo yow <laughs> donc xam nga lu tax ko mooy euh, encore une fois bu weesoo cette affaire de mal ma ma à circonflexe le je mm-hmm. mm-hmm. euh, euh, mm-hmm. loolu bu amul woon bu weesoo loolu aussi parti li xam nga parti mi du ko ndaw xaleel ci at waaye fit bee rek nag booy tudd affaire mu naxante Khalifa Sall ci boppam Barthélémy ko fit mhm. mais xam nga lu neex mooy Khalifa li mu ci boppam au forceps la jàllee parce que lu tax au forceps bu doon euh, euh, euh, bàtte rek la xalifa bëgg kon tànn na ci tànn fi njëkk mais dafa ko parce que xalifa ci ma xam ne ne xam nga ne baat moi je l'adore c'est mon c'est mon mm, frère may ma c'est mon frère mais mm. xam nga ne Barthélémy Dias maire de Dakar maire Barthélémy dalee leer ne mu ma dalee dalee leer ne mu jàkkaarloog Macky Sall dalee na foofu du yomb foofu ñun ñun Dakar yi ak Sénégalais yi ñun du dugg nañ ci gaal boo xam ne gaal bu bëri vitesse oto bu yàqu moo xam ne xam nga ban tool yee boo xee loolu Dakar waaye koy décider ñoom seen ci mag oui ma may ma may ma ñëw léegi xaaral ma wax la saa tu ñu fal ko waaye li am solo mooy hmm. Barthélémy xam na ne te Barthélémy dégg ko doon su ma ay ko taxawu Dakar bien que mi ngi ci yeewu askan mais ñoom ñaar laaloo te loolu jàppale ma dafa dafa je retiens ci li ma la wax ci kanam dina leer Barthélémy ak euh, ak Khalifa Sall parce que Khalifa nag Barthélémy est très loyal dëgg la taxaw na ko fu ne dëgg la. Soham aussi ah. waaw fa laa doon jëm mais Soham moo tey lu garaaw la toog fa toogin wu rafet. gérer ko gérer ko ba dara ñaaw xewul dara yëngatul dara xewul. te mënoon na ñaan am am bilan bu baax. jërëjëf merci beaucoup lan moo tax ñoom ñaar ñëpp nga wax am bilan bu baax bu nga xam ne fu mu taxaw. du rus. du rus il n'a pas il n'a pas honte celle la laaj mooy dama ne non dama dama ni wax na loyauté mais wax mais a la moom wax dama la ne ba wax naa ko ma déglu <laughs> am aussi sa candidat sax parce que Barthélemy il faut il faut nga nga am nga am un tempérament comme lui. Mhm. wala un tempérament et puis Barthélemy plus proche de Sonko que de que de <laughs> ma wax la mais mm. la. dama la ne Barthélemy Diaz. Mm-hmm. lu ma leer en en tout ne juum naa ci. Mm-hmm. Barthélemy Diaz moo nekk si diggante Sonko. ak euh, Khalifa moo def rapprochement mhm. parce que Barthélemy Sonko ci moom Barthélemy ko fit Barthélemy nee naa la xale la man c'est quelqu'un que j'adore il le sait on s'adore on s'adore parce que wax dëgg yàlla nit ku baax la mhm. nit ku loyal la il a le courage de mais est-ce que loolu c'est suffisant pour gagner Dakar attends chéri il est ku am xol bu rafet la ku am fit la ku am courage li ko yàqal rek te loolu yàgg naa ko wax moom nag loolu il faut mu gome ko mooy cette histoire cette cette cette étiquette d'indiscipliné de de de mi ngi xeex bu jën ko de de violence dans verbale yooyu waaye Barthélémy Dias nee naa yeewu askan woowu du ci moromu kenn ñun ñu bëgg a bàyyi xel parce que na pour ñu. Euh, a koy mm. euh, mm. bi beneen bi nga xam ne Barthélémy aussi am na ko. Mm. mooy parce il faut pas oublier aussi il faut pas jeté à la poubelle c'est que la fin jëm ca maire Mermoz fal nañ ko falaat ko attends liggéey na fa fal nañ ko falaat nañ ko liggéey na fa ba pare xam nga euh, xale la te bëgg na xam nga euh, Chérif l'envie c'est important mm-hmm. am am am envie daf bat il a envie am ambition te loolu envie ak ambition boobu boo def ak fit courage intelligent il n'est bat am na fit il s'est déplacé des montagnes kon quelqu'un comme ça dëgg dëgg Bart man nee naa suba gis naa ko euh, palais présidentiel. guerrier la Sénégal soxla nañu ko mel ne moom waaye nag ci bii mënoon naa ko ay sama yaay mi jàll du ko wàññi dara ndax il a le temps léegi ba ca des mooy. waaw Serigne. Euh, yaay booy yaay booy itam jaboot loolu seen yaay booy loolu loolu problème moom. yaay booy malheureusement xadal bi boo mais jëm naa piki jëm naa bi mënoo ci dara mais moo nekk reconnaître ma sama jël la maa ngi dama koy jàppale Sam laay eh. malgré moi te jigéen la joué bi ngay jàppale Barthélemy mais euh, Sam jigéen la mm. juste il faut bien que quelqu'un la défende celle-là sinon on va pas la laisser ah, jigéen ñi mais on jigéen la jeté dans dans la gueule du loup. Eh, Mariama Sarr ca ca ca Kaolack noonu la ñu. non non xoolal Mariama Sarr mais mais mais maa ngi tànn yow gën naa la bëgg dee. Ah, xoolal Mariama Sarr man parce que bien que je je l'apprécie pas trop mais c'est une femme. Mm. donc Mariama Sarr pousse nañu ko délai. sama yaay ji nag golf si Aïda Sow Diawara Aïda Sow Diawara sama yaay la tamit pousse nañu ko. kële <laughs> ah. euh, ñoom ñoo bokk ci parti il faut bokkul fenn. ñoom ñoo bokk ci parti il faut que accepte les réalités ak les réalités c'est que ce pays là. Mm. il faut oser le dire. Mm. on est dans un pays profondément phallocrate, profondément misogyne. c'est la vérité c'est la vérité donc vérité boobu tax ba man les yeux fermés je défends je défends aveuglément. les femmes les femmes. Ah te maa tey lu ak lu mën a def maa tey lu ma taxaw maa tey. maa tey léegi ba leen. xaalis yi tamit da ciy joué ah. ndaxte daanaka ku ëpp xaalis. rek euh, Chérif elle a choisi yow la ñuy jox dama ne xam nga euh, soo am wàdd ni mii bu doon ay dama ci waxatu ko. Ah, bu doon mi kenn waxatu ko. Touré rek bu kenn waxatu ko. ay Badiane Aïda Mbodj. Badiane Aïda kenn kenn waxatu ko. laa <laughs> nii euh, euh, kii euh, maman avocat kii seen woo kii door kenn mootu ko. moom fu mu féetee sax Badiane Aïda Mbodj ma jaaxal nag. waaw aywa liste parallèle yi aywa. liste parallèle yi liste sampal sam dënd. xam nga ma Malick mon frère waxoon naa ko fi keroog dama ne liste parallèle yi. ñun Sénégal dañoo sonn ci jinax bu jóg ne damaa bëgg a jox leen ma ko ma jiite. Mhm. parce que. am na si ñoo xam ne ñi jóg maa ñoo ma yem te ma te ma tane leen nag man au am naa ñaar ñett bëri naa ñoo bañ mais am naa ñaar ñett ñoo xam bëgg nañ ma. <laughs> benn ci man waaw yow yow yàgg man sama carte dama ko dama koy fi ñu fi nekk ñoom même grand est-ce que c'est mii man la bëgg maa nekk ci xol donc loolu loolu la yàlla dogal <laughs> mais euh, am na si fii ñoo xam yow la ñuy yow la ñuy bëggee man la ñuy bëggee man ñun <laughs> yow la ñuy bëggee grand bi dafa yëngu mi nga dar gémmiñ may max sa temps ma sama nekk si seen temps pour les autres pas pour moi damay yemale kii jigéenam ak moom ñoo bokk léegi may euh, ma grand moo taalal fay ci rukk bi te ma moom ñoo yem euh, fii chérif amoo jox benn chance léegi ma ñëw ci invité bi mi euh, ngi may déglu sama grand mm-hmm. léegi euh, Chérif euh, liste parallèle bi Aïssatou waaw waaw ñu jeexalee liste parallèle bi waaw léegi liste mm-hmm. regarde liste parallèle mm-hmm. Faty xam nga fii wax yàgg naa wax ne Macky fii ku fi politique mooy sa papa xoolal Dakar léegi Bougane jóg na Barthélémy Pa Doudou ak kan Diouf Sarr ak en attendant Pape Diop léegi euh, imagine toi euh, liste parallèle yi majeure partie fan lañu bokk benn bokk yaakaar ba pare déglu baax xoolal xoolal question laay posé ndax damay bañ ko porté kii bi diffamation laay bañ moo tax damay noppi mag laa mais imagine toi ñu da dem tribunal moom li <laughs> nga ñëw xoolal ñaari liste euh, xoolal rek li xew ci parallèle mm-hmm. am na ñoo xam ne barki de moo ñaar instant Sall génn fi ne Macky Sall moom woo dama naa bàyyi Euh, euh, Siré Kaba du mu doon bañ bañu rapidement la rentré dans les rangs Fatick Gueye ñoom Birame Faye ñoom ñeneen ak ñeneen mm-hmm. mais à côté de ça euh, tu vois Mambay Diop. Kolda déposé na te moo te moo ne góor gi. Malick dinañ ko bàyyi mu jeexal jërëjëf muy ma da Macky dafa am ñoo sax mu recevoir ñee la wowul ñi. est-ce que matul di ëf. moo moo roon Macky xoolal Macky. jërëjëf Macky à deux may ma man ma daane a ma ma daane force xoolal. il a Malick bu leen ko relance bàyyi leen ko mu daane invité daane la ay set rapidement. voilà mu ñëw bu ko defee doyen ñëw. je suis ça Macky Sall a deux une vraie liste une liste su suuf la vraie la teg ñoo xam ne nii au fond gëmu leen dafa ñàkk pexe mu teg leen parce que dem local yi ci côté Macky Sall mm. opération gox ki la mm. moom Macky Sall du financé mu ay ñoom Diouf Sarr yi nga xam ne Diouf Sarr euh, léegi nag xaw na riche tuuti mm. mooy financé na mën na ko gox ki gëmul gëm gëmul Diouf Sarr Mame Mbaye Niang nii moom Macky Sall moo ko financé moo financé ñu bari moo nekk ci ginnaaw moo ñoo ñooy vrai candidat wu très dëgg la monsieur c'est un vrai candidat léegi nag li si nekk mooy xam nga lan mooy li nga wax sànq foofu laa jeexale mhm. Dakar waaye ñooy tànn mhm. nañu tànn le meilleur choix mhm. waaye Macky Sall euh, il n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier moo fi liste parallèle yëpp c'est lui qui les a financé comme ci ne noppi nga parce que Macky Sall amul benn ministre boo xam ne osé na taxaw jàkkaarloo ko moom ndax mu yónni la of nag waaye yónnewu kenn of nag woowul kenn ñi mu woo ñi mu woo ñi ko ñi woo na leen bàyyi ñu bàyyi. ñi ko dérangé woowu leen dafa taxaw silence complice parce que moo leen ngemb ci ginnaaw. salaam jërëjëf merci beaucoup Aïssatou jàngat bi am na solo ñu jàll itam ci leneen muy document spécial euh, bu ñu leen euh, dégtal di jagleel ko rek ñi nga xam ne ñoom ñooy victime événement mars 2021 bakkan yi ci desoon ak ñi am ay gaañu gaañu njaboot gay wéy ba tey di sàkku ci yoon euh, ngal la ñu indi ca àtte ak li ñu seetaan ko dellusiwaat dalal suñu invité doyen Kassé. boo ne cëpp ci biir kër gi lee nataalam